Sonko mosuma ko jox loxo te séen naa ko mu taxaw gaa yëpp di daw ñu njëkkante ma taxaw fi ma taxaw di ko xool ndax ba ma koy jàpp jàppale ma Sonko man réew mi bu waree boo ko waree togg ba pare mu xooñ day xaw a am nu mel bu lu xooñ daal damaa xamul nag ba xam ñu mën koo jeexar bi mu xaw a tanek yooyu daal bëggagoo ci bëggagoo yàlla rek moo tax may wax maanaam nag mën naa baaxee nag yàlla moom lu ne la man mhm. naa baaxee mooy mën nañoo defar ak yooyu bu ñu ko defaree nag bu boobaa tañ mhm. boole ñu ci ñun sanjaar yi man moom koo

ñi ci des ana dugal doomu santaane ana ñu léegi nag ki jël ñu dugal ñu si nag boole ñu si ne kaay leen fekke fa ñuy feesee ngeen bokk ci nar yi kooku la ñuy jàppale de bu ñu amee fulla laa ko ñoom santaane ka leen wax kaa leen bokk ci fa ñuy feese nag wi hmm. waaye bu ngeen te bokkee ba pare dinañ leen joxaale moo gën kaa leen fekke fees bi ñu dem toog yor suñuy bët di xoole bañ pare seen doo seen i mbir bu ñu pare fàtte ñu taxaw ensemble leen di tudd seen bopp bàyyi gis ci at yi mu nekk député muy tudd santaane keneen ku ko mës a am Cheikh Bara la ñëpp ci yem te xam nañ ma xam naa leen te xam na fu ñu jaar ci élection yi jàll ba mu ba mu gisee sama ma indi at bu Mbàkke ci élection yi passé sama kër affaire yi ñu toog fa ba 2 heures matin Touba ku fi def meeting maa la wax ku fi def meeting 2 heures doo gis nit waxoon na ma ak bu dee biir Touba ndax dafa xaw a leer mhm. sancaane xam nga daal lëndëm ah, insécurité totale mhm. kenn foofu 20 laa wax boo jógee Mbàkke ñëw fekk ñu tëdd mhm. ndax amuñu tëli amuñu tus amuñu reerukaay amuñu dara fu ñuy dëkk léegi nag kuy tëdd 20 xam ne man maa taal sama oto dem jël jéb mbàkke ndaw ñëw fekk ko fii paaleen ma topp ko mu dem mu dem njaay ma ne ko ma ma baare jël oto bi baare ko na ko doo fi demati doo fekk dama ko na def fekk fa nit ñi mhm. la ci suba gi la may soxna ñu ma diw nee na kii fu nekk nangam na na na dama bëgg waxtaan ak moom affaire yi jàlle mhm. keroog ma taawee sama oto dem ci moom muy wax waxee dof moom baara dolli mhm. naan eh, soxna si xam naa mbokkam la ndax day li ay mbokk la ma waaw sama bàyyi ma woo man ma toog fa suba teel ñëw ñu ne ma sëñ bi mu ngi ci biir léegi mu génn mu génn ñëw ne sama bàyyi ma woo man nag man am naa bàyyi xaaral ma ñëw ma taal sama wol ma taal sama taal nag sama njiit na fiw dem sama yoon bokk fa ba tey ji gisee waatun te doo mënutuma woo ma jóg man di dem taal ñii gi nga yi politique fii mhm. ñoom galok ñii ngay wax Abdou Bara Dolly ñëpp xam nañ taal ndax am na bu ma ñoom galo ba ba bañ ba bañ njëkkee def association bi am na ba ko jiitoon bu gën a tàng bi hmm. ma ma nekkoon ci mooy bi ñu fiy jëlee booy yi nga xam ñoo doon délégué. mais taal est tamit nag doo wàññi tànk bi tuuti pour mën a liggéey ak ah, yàlla nii la ma bind xam nga man wax naa ko gars yi nee na yàlla dama bind nii lii may wax newul sama xol néew ma damay wax pour xol damay waxee nii may waxee dama ko lu ma gëm la yàlla bindee ma ko dama ne la jomaay bu ma daje woon moom ci palais ba ñu daje fa tey jii nii laay waxee moom comme gars yi bëgguñu lu tàng est-ce que doo ah. koy seddal des fois xam ne bay boo ñuy seral rek bay boo ko léegi del jël kàddu yi di ma waxal <laughs> euh, waxtu bu may dem di fenn mhm. ànd ak suñu na ko dem waxal ko waxtu bi li jës bayul 88 628 19 05 mën ngeen a dugg foofu euh, léegi fi ñu koy tëjee mooy taal ginnaaw bi nga jàngatee Sénégal mhm. Assemblée nationale 14e législative bi ñu génn mhm. ku nekk gis na na mel euh, Assemblée nationale bu doy waar boo xam ne daal li ma fa moo tax may wax mooy bi léegi nag kajjante xeexante dóorante di man daal sëñ bi ñooñu dañu leen yàpp sax ñii effectivement léegi nag ginnaaw ba nga ko jàngatee noonu hmm. taala nan la fa séene demee assemblée nationale man de li ma bëgg bu ma fa demee bu hmm. soobee suñu borom taala baa dem di jàpp ay kii baak dii bi hmm. kees bi ñuy voté di yanu di ma def noonu du ma def xam naa ne képp xañ sañ ci loo xam ne da ko war a am kees ga dana toj <laughs> waaw lii moom lu leer la bis buñu nee bis bu ma demee ci foofa wax leen loo xam ne njëriñu sañ jaani la

Mhm. benn waaye damaa mos a dem ci benn midi ñu fekk ma fa waa ji mu wax ba pare mu ne ba <laughs> waaye man sax duma Moustapha Cissé Lo numéro jàpp naa ne mhm. am naa dogu ak Pastef ak fulla ak fayda ju toll ni mhm. fi ma dëkk ma gënal fépp nag yàllaa ma ah, fi ma dëkk fi ma dëkk nii sanjaan yi barke maam Cheikh Ibrahima Fall ak penk bi moo ma moo ma gënal Daaru Xudoos ah, ndax fii la ma sëñ Tuubaa sédd te nag ñoom gàlluwuñu sanjaan yi nii dañ leen yeb waaye gàlluwuñu de ñu am fulla lañu seen bopp ñu am fayda lañ ñu xam seen bopp ñu am gëdd ndax la fa ëpp ci ay sañcaan dañoo nekk séeréer xam nga séeréer dafa gëm boppam séeréer dafa gëm boppam ñi ci des ay pël yooyu a fee nekk tarax leen ñooñu dañuy murit piir xam murit piir xadd nga kaaba nga ñëw nekk séeréer xadd kaaba nekk murit piir xam nga yow kenn waxatu la nga nekk bu laar noonu moo tax ñooñu dama gëm gi leen gëm man xam naa ne lii soppeeku ci gox bi ci ñoom lay tàmbalee ñëw ci man mhm. moo tax ñoom laa gëm ni ñoom ñoo war gunge projet bii mu dem projet lañ yor bu saf-saf boo xam ne dañu ko war a yóbbu ensemble te bu ñu ko fa yóbboo jàpp naa ne waxuma la sancaani mhm. waxuma la Touba waxuma la département waxuma la région waaye damaa jàpp ni Sénégal gépp lañ ci gis bopp ndax ñun li ñu bëgg rek ñu mhm. bëgg nañu tëgg projet de loi boo xam ne day jox